Macky nag population bi la war a déglu parce que population bi ñoo ko faloon du député de benn député falu ko askan bi ñoo ko fal léegi appareil boobu ñu teg diggante mool 10 ak mool 8 bu dee moom moo tax courant bi du yokku ah nañu wax nit ñi appareil bii ñun dañ ko loué nangam nangam au lieu que ñii ne nit ñi dañoo ab appareil loolu du dëgg dañ leen jox ay oto jox leen bureau climatisé jox leen kër climatisé fayu ñu courant fayu ñu ndox muy ministre bi muy député bi ak ambassadeurs yi yooyu nañ ko wàññi ñu fàtte ko tur yi moo gën ñuy toroxal askanu Sénégal état bi nag dafa mel ni mafia ba ñuy ne mafia Italie à l'époque dafa mel ni suñu état mafia Italie la ak à l'heure actuelle parce que nu ñuy noote askan bi dafa métti nañu wàññi loolu nañu xool askan bi yërëm askan bi. fay ñoo sañ patron yéen impôt yeeg taxes yi moo leen fi bàyyi. dañ leen dénk donc moomu leen ko balaa ngeen yokk ngeen waxtaan ak askan bi nanguwuñu ko li mooy lan li mooy lan xëy yokk courant bi ma la dañ mu neex. askan bi dafa sonn askan bi dafa sonn alal ji du yoon sàcc alalu Sénégal ba pare di def ah, yokk courant bi pour lan. ñuy fay courant bi ay baadoo la nous faisons tax ñu Nous fay ñoom ñu nous suñu kaw bu ñu dem ñu Nous ñun nag ñun ñooy pauvre ñooy kii pas normal c'est pas normal nañu courant bi jàmm na ñooy tant que ni courant bi manifestation yi du jeex. asalaamaaleykum Sénégal ñu ko gisandoo mouvement bu ñuy euh, wax euh, ñoo lànk ñoo bañ ñoo fi ci place de nous euh, avons euh, manifester contre euh, yokkim kuram bu Macky def le tax ñu tey jii taxawaalu di wax